aywa tey yëglekaay li ñu xëyee ci aljuma ji euh, Chérif ñu tàmbali ak l'observateur l'observateur daanaka journaux yëpp ci lii lañ xëy muy image bu ñaaw daanaka def le tour du monde yi à l'état pur ñaari député kon muy du Niang ak euh, ki nga xamante ne rek kon euh, moom mooy Massata euh, Samb ñoom nag ñoom ñoo teg fitna soxna si di Ami Ndiaye ñii bi journal bi daal di ci ñëwaat filmu ontu maanaam gàcce la kenn ki daf koo pes ki ci des sax boo saagunut ab plainte doon ko ko jagleel muy secret vie ki nga xamante ni moom mooy na Ami Ndiaye ñibi ñu tuddee ko kon la rebelle de ñibi histoire également moom du Niang moom mi nga xamante ni moom mu wéq soxna si ci biir chronique tamit pugila bi journal bi ñëwaat na ci cënam gën a yaatoo ca jamono jooju tamit ñu wax nag ci li nga xamante ni mooy rapport d'audit bu autorité de régulation des marchés publics di ARMP muy SAPCO bi ñu dénk rek aménagement Petite Côte pharmacie nationale d'approvisionnement jëm ci wàllu transport yi ñoom daal virus d'irrégularité lu ko tuddee maanaam ay structures yoo xamante ni dañoo profité ci mbas mi ngi rek def naka sudul noonu ci ay surfacturation dépasse budgétaire collision kon ci ay marché yoo xamante ni kenn da koy jënd keneen def naka sudul noonu wàllu wér-gu-yaram ba léegi ak professeur Abdoul Kane moom nag cardiologue la mi ngi rek dànkaafu nit ñi ci maladie cardiovasculaire yi nga xamante ni mi ngi faat doomu aadama lu ci bëree bëri muy ay chiffres yeneen chiffres yoo xamante ni tiital nit ñi ci wàllu ñaawteef la banditisme lan ko daal di tuddee gis ngeen ko ay vol à l'arrache ak yu ni mel ay révélation kon ci lan moo tax mbir mi gën a jéggi dayoo rawatina kon ba menacer li naan sécurité publique fii ci Sénégal ñu dem ci coupe du monde ba ca Doha ba léegi rek ak gaynde Sénégal yi ku ne xam na ni ginnaaw suba incha allah dinañ daje ak ñii di waa Angleterre ci huitième de finale yi Abdou Diallo ngi nii moom it bokk kon ci axe central bu équipe nationale bu Sénégal enquête sur Abdou Diallo kon l'autre taulier des Lions moom ak ki nga xamante ni moom mooy Kalidou Koulibaly def nañ ci témoignage rawatina ki nekkoon ab sélectionneur ca France ak tamit ay ancien entraîneur ca Belgique ak ña daan footballoon donc moom ñoom ñëpp ñëw nañ ci li nga ni rek mooy Mermoz tamit tentative de viol am na fa ak vol ba nga xamante rek moo indi ay jafe-jafe ci benn couple boo xamante gis nga ko ci seen chambre d'hôtel. ñu dem ci enquête député gladiateur la nemmeeku ñoo xamante daa daanaka ay muscle ak wàllu doole rek la ñu wane wane wuñ fa xam-xam ak la tax ñu yóbbu leen ci assemblée nationale ñu war faa représenté askanu Sénégal li koy firndeel kon mooy agression bi nga xamante ni agressé noonu ko soxna si di Amy Ndiaye ñi bi quatorzième législative kon moom dem na ngir battre tous les records d'indignité ci wàllu rek parlementaire fii Sénégal ñoom ñu ne woon kon bi assemblée dina wuute ak yi fi yim fi jiitu ndax rek wàllu rupture wante nag loolu gisuñ ko Amy Ndiaye ñebe gis nga ko dañ koo rek sot soto def ko loo xam ne daal métti na Massata Samb ak Mamadou Niang ñoom ñoo def lu ni mel soxna yi nekk ci assemblée nationale rawatina benn bokk yaakaar ñoom it nee nañ dinañ plainte soxna a tamit ñoom ñu ngi leen di interpeller ca jamono jooju tamit hémicycle ba yaakaar Barthélémy Dias moom it gis nga ko dafa ñëw ak benn audio maanaam VAR ngir rek fàttali Euh, ministre de la justice Ismaïla Madior Faye ay kaddu démbam jëm kon ci limitation mandat présidentiel Pape Alé Niang moom suñu naataango bi moom it tàmbali na li naan grève de la faim démb ca prison bu Sébikotane Reporters sans frontières demoon nañ seeti na ko Sédhiou tamit ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy accident bi soxna naata ñeenti doomu aadama ak fukk ak juróom ñoo xamante ni kon am nañ ci gaañu gaañu anglais yi dafa mel ni am nañ leen ragale xamante ni lu doy waar la ba léegi moom Mamadou Niang a ngi nii gis nga ko song gim song Masata sax la ak ki nga xamante ni kon moom mooy député bi di Ami Ndiaye ñii bi moom ñoom ñaar nag di bokk ci Yewwi Askan Wi ñoom ñoo sot sotoo soxna si ba tax na gis nga ko ndaw sa hôpital daal di mujjee ginnaaw kon bi mu amee lii di malaise IMF ministre de la justice de Ismaïla Madior Fall moom droit dans ses bottes wax na ci troisième mandat bi réforme du parquet jëm ci li nga xamante ni moom la ko député doon interpellé et puis tamit gis nga ko ba léegi rek Euh, am na benn sax gëstu boo xamante ni suñu naataango bii di Serigne Saliou Diagne def na ko de sa lâche mais il l'a giflé pour rek évoquer li nga xamante ni moom moo euh, kii waa il la gifla sax ñëwaat ci li nga xamante kon mooy ci assemblée nationale ak pes bi nga xamante euh, député bi def na ko kii di Amy Ndiaye Gniby président Macky Sall mi ngi euh, mm, mooy amphithéâtre yi kon projet pédagogique bu mag a mag bu ñu sukkandikoo ci moom UAM nag di université Amadou Mahtar Mbow kon inauguré nañ ko dem muy infrastructure boo xamante bu mucc ayib la nouvelle génération respecté di naan leen normes internationales et puis tamit jëm ci li nga xamante ni tam mooy parrain bi daal dina offrir sa bibliothèque maanaam dix mille livres yoo xamante ni kon jox na ko université boobu kon moom Amadou Matar Mbow moom moo def lu rëy lii am solo lii

indicateurs yi demee ESAR également gisuñ leen loo xamante daal ci absence totale ci wàllu facture ak yu ni mel Dakar dem dikk cellule de passation de marché bi moom direction générale bi daf koo tëb def lu ko neex bala ngaa def marché da war a jaar ci cellule de passation de marché rawatina kon 89 de francs CFA yoo xamante ni jëfandikoo nañ ko beneen bi tam mooy ministère de la culture ñoom it jënd ay matériel de protection contre Covid 19 la même chose daara yi daal dañ ne dañoo bénéficié ci li nga xamante ni mooy ay dund jëm ci cent soixante quatorze virgule deux cent soixante quatorze millions de francs CFA wante ba léegi firndeelu ko der moom. ñoo xadd kaa bëgg ñoom ñi nga xamante ni gis nga ko procès verbal de réception lu jëm ci ay support ci wàllu média ak yu ni mel daal amul dana te koppar yi bëri na daanaka 94 91 millions de foo xam def nañ ko ci ak ay 18 millions jamono jooju Pape Alé Niang tàmbali na grève pagaille générale s'installe à l'Assemblée nationale agression Amin ñii bi et opération jëm rek ci Nord Sindia yi nga xamante lu toll kon ci 315 de culture chanvre indien maanaam li nga xamante ni mooy li ni tux tamu ñu bon li nga xamante sinébar bi mhm. rebelle yi doon ko fa def armée bi moom ñu ngi def liggéey bu am solo ñu jàll ci tribune maanaam ñi nga xamante ñoom ñoo agressé soxna si moom li lu ne fàng la kenn du Euh, bi ñu koy def euh, gis nga ko ñëpp teg nañ ko ci et puis tamit euh, ñëw rek ci gëstu bi ba léegi colère noire borom xam-xam bi di eh, di xaali Moustapha Fall moom it bind na ci rek jëm ci la nga xamante ni moom moo xew fii ci Sénégal ak ca assemblée nationale soxna naata et puis eh, ignorance yi ak tamit paresse ak manquement bibliothèque fermée les jeunes tournent le dos à la lecture euh, lecture moom am na solo. Mm, am na solo moom Walf Quotidien lu mu xëyee tey. la république giflée maanaam gars yi daal danoo mbéj république bi li ko waral mooy la xewoon démb ci assemblée nationale ak député de l'opposition hôpital la mujj yeewoo journal bi ñëwaat na ci bu baax a baax et puis tamit Abdoul Mbaye ñëw rek ci économie bu Sénégal moom mi nga xamante ni tamit euh, regard extérieur la ko daal di tuddee ak tolluwaay yi dafa mel ni 14 mois yoo xamante ni doyun pour redresser li nga xamante ni mooy économie bu Sénégal Macky Sall daal di inauguré université euh, Diamniadio ba daal di immortaliser Amadou Mahtar Mbow mi Touré ak Ismaïla Madior Fall ñoom it gis nga ko. Mimi nee na ko fu nekk dem nga fa ne nul ne peut faire kon plus de deux ci wàllu euh, présidentiel. ñu jàll ci les échos. les échos ak barbarie ba xew ci assemblée nationale mel ni kon Amy ñii bi dafa wan lor ba pare ñu daal di koy fitneel ci assemblée ba euh, Moussata Samb moom mi nga administré daal di mbéj mi tamit gis nga ko ak Mamadou Niang ñoom it gis nga ko violent ku loon ko daal di def Amy Ndiaye nag finalement dafa mujj xam sax ba daal di mu yeewoo Ballo Touré ak Nicolas Jackson ñoom it euh, gis nga ko rek euh, gis nga ko ñu ngi commencé daal di am ay taxawaay les anglais tamit naka noonu Cheikh Kouyaté moom ba léegi kenn gisu ko Sabaly ak Nampalis absent à l' entraînement jëm ci loolu et puis rapport ñi nga xamante ni mooy ARMP bi le ministre Pape Amadou Ndiaye aussi moom it naka sa dul noonu ak Aïda Sow Diawara mi fi nekkoon maire bu golf mhm, Laas. Euh, Laas daal di ñëwaat ba léegi rek ca jàppante amoon ca assemblée nationale muy pigila bu mag a mag ba tax na kon gis nga ko ay député yeewee askan wi ñoom ñoo boxe soxna si di Ami Ndiaye ñi bi Samb moom moo ko daal di pes ki nga xamante tamit mooy naataangoom di Mamadou Niang def lu gën a garaaw lu ni mel et tamit euh, député maire bu ñii moom it gis

fa ngir doon ko nemmeeku ji. Mhm, source A. Ami Ndiaye gis nga ko moom it ma nga ca urgence ay témoignages yoo xamante ni aji Mbergane Kanouté moom moo ko wax moom mi nga xamante tamit euh, ci faamu benn bokk yaakaar la bokk et puis journal bi seq na waxtaan ak Ismaïla Jacobs mi nga xamante moom mooy arrière gauche bu équipe nationale bu Sénégal nee daal li bëgg mooy ñu gagné sept coupe du monde. ñu jàll ci le témoin. l'Assemblée nationale ba léegi rek bi nga xamante transformé nañ ko daal en arène maanaam làmb la comme ni ñu ko daal di gisee ak ay gladiateur borom yi doole gi ni mel bataille rangée sànnante chaise saagante wax ju ñaaw député bi di Amy Ndiaye ñii bi moom it ñu daal di ko fay pes bat son collègue. du pur ak itam spectacle boo xam ne daal ñaaw na trop ni ko gisee démb ca jamono jooju sax ministre bi fa ko fekk muy Ismaïla Madior Fall moom it ñëw na rek ci li nga xamante ni mooy interpellation yi ko interpellé député yi euh, Macky Sall ca jamono jooju kon mu ngay coupé ruban bi ngir daloo université ca Diamniadio. Mhm, ñu dem ci Sud Quotidien. assemblée nationale ba léegi rek ak ñaari kii nekkoon fi ministre de la justice kii moo ko fa wutu woon. di nga xamante ne mooy Ismaïla Madior Fall Aminata Touré kon ak euh, Ismaïla Madior Fall daal euh, moom Aminata Touré moo ko interpellé li nga xamante ne mooy taxawaayam ci troisième mandat bi nga xamante ni dañ koy rek euh, sikki sàkka jëm ci président de la république moom nag am na lu mu ci tontu journal bi ñëwaat également ca la xew démb ci wàllu violence bi ñu examen budget ministre de la justice. Mm, tàggat ñëw ci li nga xamante ni mooy ñaari capitaine yi war a dajante kon muy Harry Kane ak kii di Kalidou Koulibaly pourquoi l'Angleterre Sénégal war na cee mën a génn ak ay anciens yoo xamante tamit football nan Angleterre gis nga ko Joma si Camara ak kii di El Hadj Ousseynou Diouf kon toujours euh, Kouyaté moom mi ngi au soin 23 Lions dem entraîné nan Sabali ak Nampalis ñoom dañ leen a ménagé ñu mujj daal di noppalu. ñu dem ci beneen muy stade. Ah, hmm, wala jeex na jeex na ah, ah kon laa mun nan xaar tuuti ñëwul ah, stade tamit ak lamb merci beaucoup Chérif ba ci kanam kon Chérif ñu taxaw ci benn journal.